golo ngi ku baax a ngi ku la taxawoo ngi ah, sama lépp la. waaw yàgg nga nu ko wax nag waaye lii moo gën a moo gën a fekk parce que instant bii instant bii ragal du ànd ak yow. kii koo fi gis rek xamal ni. Eh. am na lu ko ñor. macha man nag man oomu lu may nëbb kenn képp laa yaakaar muy sëñ Tuubaa. jërëjëf moo tax yàlla na nga fi yàgg. yàlla na nga wér. yàlla la yàlla dimbali ba eh, eh, lépp loo xamante ne nii. saytaane la jëm ci yow suñu borom teg am na droit ñaanal la ko ndax suñu mbokku taalibe bi ñun suñu tubaab bi waaw yàlla defal ko ah, moom da ngeen amul mbokk ah, ah, ah waaw waaw moom dañ wax la ko ñoo bokk léegi moom moom gaay bokk ñoo bokk baay waaw ñoo bokk day baay kon boo gisee ma ñëw moom suba laa ko woo muy day ñëw ci yow man ko fu ko toll ñu wax bu ñu woon yowet te mu ñëw dinaa ñëw waaye bu ñu woon te mu yowet dinaa ñëw eh, wax naa gaa yi léegi ni leen li atu bi gën a rëy ci adduna nit war koo am jàll ak moom da ko am mooy yaral teg bëgg lislaam sëñ Tuubaa dañu woon nan jàng nan liggéey nan yaru ne bu ca dara dee manqué nan bàyyi liggéey bi te jàng te yaru bu ca dara dee manqué nan bàyyi jàng bi te yaru ni gën ci nit

fii laa ko waxee ñëpp mbooloo bu ñu bàyyi seen ndey bàyyi seen bàyyi def na jiitu ci seen diggante seen tubaab rasulullah yi ak tarixa bu man di doon dangaa war naa akeet naa jéem sàmm boo gis yàlla da koo jox yet ko wàññi dugg yi ci aw yoon nan la wut ñëwee lekk naan gi nga ànd baax ñëpp nag jox ci yar ak teggin baax yi bokk ñëru leen loolu ku yàlla tax a jóg xam na ko réew mi yàllaa ko moom moo ko jox Macky Sall bu cawal nekkee dala koy jox kenn du ko saafara tooñ nag moom li foofu yàlla nag du jox ñëpp lu rëy lu ñëpp laa ma nga ne te amul fu mu ko jaarale coow li mënta ñàkk maanaam yàlla na bu la ci dara laal asoo ngi nii murit a ngi ku bëgg yàlla ngi nii jërëjëf waaw moom téemaan la waaw ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi di abonné fii si Tawfekh a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne